Euh, jeudi 25 mai 2023 euh, dama ñëwaat pour euh, andi ay je ci li nga xam ne actualité bi parce que démb bi may def waxtaan ak yéen dafa li ëpp solo ci ciowlé am Sénégal moy ciowal sif li nga xam mom lañ jiiñ Ousmane Sonko té ab xalé bu jigen bu tuddu Adji Sarr def ko boobu dafa am information boo xam ni jotuma ko woon a yore parce que dama jàpp man ni ci coowal viol ki ci ëpp solo mooy médecin bi lu la waay mën a wax bu ñu wiiri wiiree ba pare kenn mënta àtte mbirum siif ci waxuñu ci certificat médical bi kon nag comme certificat médical bi moo war a nekk au cœur des débats parce que jiñaate siif moom yomb na waaye ki ko mën a firndeel mooy ki nga xam ne moom mooy l'homme de l'art l'homme de science bi nga xam ne moom moo mën a seet ki nga xam ne dañ ni dañuy dañ koo siif pour que mu mën a firndeel moom médecin bi gynécologue bi ndax kii ñu ma andil siif nañ ko wala siifuñu ko kon loolu moo tax comme ni ma ko yàgga waxee depuis coow li am deux mille vingt et un que seen noon ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo jiñaate siif mooy certificat médical bi amul fenn ci àdduna bi nit koo xam ni mos nañ koo tëj ci siif te certificat médical ba waxul ni moom mii kat yegg na ci xale bu jigéen bi même bu kan ko jiiñ dee weddi au moins dana am ab kayit bu tudd certificat médical boo xam ne dañuy seet xale bu jigéen bi xool awraam xool ndax kuur gi dugg na ci tuq gi comme ni ma koy waxee waaw kon bu lu bees amee ci loolu day jaadu ñu ñëwaat pour andi ay leeral ndaxte démb dafa am benn document boo xam ni docteur Alfousseyni Gaye moom moo ko génne tudde ko mise au point mise au point mooy leeral parce que comme jiixi jaaxe yi bari na te démb gis ngeen ci journaux yi ma leen présenté ci live que journaux yu bari dañoo titré ci li nga xam ne moo xewoon tribunal ba chargé Ousmane Sonko seet lenn que euh, xam ne ku ci nekk nga ne boo ko dina ko gën a nga wax ko parce que fukki baat lañ fa wax wala juróom-ñeent dafa setal Ousmane Sonko ñom nak ñoy jafandu ci lo xamni ay tapale ko lal manam di def sa précis érotique comme nima ko waxe demb di wax say waxe kese moy wax yu salte nan def na ma nik def na ma na juutal na ma roof na ma baaraamam mak yoyu ci lo xamni mëno ko firndel ci waxe kese ñom journaux yépp ñu dem bindu ko daan ni ay film porno mo amon ci tribunal bi mu leer nañ ni depuis le début ñepp xamnañ ni loolu lañ bëggoon manam def un procès moral boo xam ni dañuy wan nit ñi ni Ousmane sonk du nit ku baax daan ni kii nga xam ni ab salafis la kii nga xam ni ab ibaadu lay woote kii nga xam ni day tengal diine ji kii nga xam ni dañuy dafa jàng alxuraan kii kët nga xam ni day sellal ndekete moom day dem di seeti ay xale yu jigéen ñu koy maase ba mu ba mu leen di siif noonu lañ bëggoon a présenter Ousmane sonk loolu moo leen ci intéressé depuis le début kon nag bi loolu amee. buñu amé kon gynécologue bi ñu takal ko lo xamni waxuko ñu yokal ko wax jo xamni waxuko ñom journaux tapalé kat yoy yep ma fi wane dem dem bind ci seeni journaux que docteur Alfousseyni gay mo wax ni ci loolu mu jëlé won ci awra aji sar amna ay walax ndian yuy dund manam man yu bi nga xamni gis nañ ko ci awra aji sar ñom journaux yoy yep titré won demb en tout cas ñu bari ci ñom dan ni euh, docteur seni gay mo wax ci tribunal ba ne amna ay walax ndian yuy dund yo xamné gis na len ci lolu mu taataanoon ci awra aji sar bin ko ko ëndalee na nak mu choqué docteur seni gay choqué aussi ñu bari ñu nekkoon ci salle bi parce que ñu nekkoon ci salle bi yépp biñ liiree journaux yi ku la ci woo naan la mais man <laughs> mais li ñu wax nii ak la nekkoon ca saal ba bokkul docteur Alfousseyni Gaye mos ta wax ni dafa am ay euh, dafa am d'abord sperme bu mu gis walla ay wala njaan yu mu gis ci sperme bu mu gis ci mànn yu kooku docteur Alfousseyni Gaye mosu koo wax ci tribunal bi kon euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy journaux yooyu nga xam ne ñëpp xam nañ ni. même bu dul woon sax affaire euh, aji Sarr Ousmane Sonko suba ngoon ci la tiitre ci lu neex nguur gi rek lañ nekk ñoom presque ñu ëpp ci ñoom ci journaux yi ci nekk ci jàppale nguur gi lañ nekk ak di def ay titres yoo xam day jàppale nguur gi kon nag loolu bi ñu ko waxee ki nga xam ne mooy nday mbill gi muy docteur Alfousseyni Gaye mënul woon a bañ a génn pour leeral parce que comme dañ koo tuumaal ñoom journaux yooyu nga xam ne ay journaux tappalekat lañ ñu bëri ci ñoom ni moom moo wax wax ju rëy jooju te moom mosu koo wax ci enquête préliminaire bi mosu koo wax ci instruction bi maanaam bi leen juge d'instruction bi Maham Diallo dee woo ak di leen defal ay confrontation ñoom seen biir ñoom témoins yi musta wax lu jëm ci loolu waa ñu ñëw ba ci tribunal bi ñu bëgg koo wax loolu loo xam ne waxu ko woon kon mu génn moom def ay leeral loolu am na solo moo tax naam gis nañ ay tappalekat yoo xam ne tey dañoo xëy ci alxamis ji ginnaaw bii docteur Alfousseyni Gaye génnee communiqué am démb ñoom tey parce que Alfousseyni Gaye mi ngi génnee communiqué am démb ñaar fukki fan ak ñeent wax ne li ko journaux yi waxal ay kàcc neen la lool ñu ko waxal ni moom gis na mànd yu ci li mu jële woon ci aji saar li mu taataanoon ci aji saar ci awraam wax ne gis na ci ay Euh, wallax njaan yuy dund mu ni loolu du dëgg loolu mu def ci mise point bi léegi nag tey dafa am ay tappalekat yoo xam ne dañoo dem naan communiqué boobu nga xam ne Alfousseyni Gaye moo ko def démb wala mise au point boobu mooy leeral boobu nga xam ne moom la indi démb moom al euh, moom docteur Alfousseyni Gaye pour weddi li ko journaux tappalekat yooyu taqal loolu la tey ay nit doon jéem

mais cachet baak signature ba tur wa ca nekk Alfousseyni F lañ koy binde alors que ñoom PH lañ ko lañ lañ bind ci seen document bi ñu wax fa ci seen document boobu nii li nga xam ne moo génn démb te te Alfousseyni gay def ko loolu mooy document bu faux bi alors que ñoom bii ñu def tey moom mooy document bu faux bi parce que Alfousseyni Gaye dëggal na ni démb loolu loolu ñu publier ci réseaux sociaux yi loolu moom moo ko bind mooy mise au point boobu ngeen gis yéen sénégalais yépp nga xam ne moom day andi ay leeral ci leen ko tuumaal ca tribunal ba te dëppoowul ak li am kon nag liñ ci war a jàngate ñoom rek mooy depuis le début de cette affaire ñoom lépp luñ ci def rek daanaka dañuy toog ba ci yàgg rek yàlla leeral lépp parce que ay fen du bi jaaw luñ ci def rek ak bii nga xam moom lañ mujj a def maanaam di jéem a falsifier benn euh, document di jéem a def benn faux pour gëmloo sénégalais yi ni document Alfousseyni Gaye boobu génn démb 24 mai du document bu baax waye seen boss moy bu baax be far yàlla léral lépp ni ñom seen document bobu ñu defar moy document tapalé bi c'est un faux document parce que yàlla mo leen djumlo Alfousseyni ni ñu ko bindé bokkul ak ni Alfousseyni gay di bindé turam légui nak kon tey day am solo ñu andi document bi nga xamni moy document bi Alfousseyni Gaye publier démb nga xam ni da doon leeral li nga xam ni moo amoon ci dossier boobu ak li mu def kon nag ñu tekkil ko sénégalais yi parce que du sénégalais yëpp ñoo mën a làkk français te moom li mu bind ci français la ko bind kon moom docteur Alfousseyni Gaye comme leeral na ni document boobu moom moo ko def moom moo ko xaatim kon ñu leeralal ko sénégalais yi nga xam ne dégguñu tubaab pour ñu xam lan la Alfousseyni yi wax ci document bi loolu day am solo parce que comme je l'ai dit, nous du une chance am chance dégg le document bi mi ngi mis au point moom Alfousseyni Sénégal de donc ñaar fukki fan ak ñeent ci wéru mai bi nu nek ci la docteur Alfousseyni Gaye mi nga xamni Ousmane Sonko ni da docteur Al Sénégal, Momo moko set nyarifan guddik ñaari fan jëm ñetti fan ci wéru février 2021 mom docteur Alseyni gay mom nak nga xamni mi ngi liggéey hôpital Idrissa pouy mom mi sétone Adji sar mom mo bind sénégalais yi pour léral pour téggé touma par rapport ak journaux kat yoy nga xamni ñom ñoko jiñ ko yow ya wax ni ci euh, li nga taataane ci awra aji saar bi ñu la ko andilee yow Alfousseyni Gaye yaa wax ca procès ba bi xam si moo am bërki démb ñaar fukki fan ak ñett fii ci ndakaaru ca tribunal bu Dakar ñoom journaux yooyu ñu tuumaal ko ni moom moo dem wax ni euh, gisoon na ay wallax yuy dund ci biir man yu boo xam ne mi ngi ko jëlee ci awra aji saar te loolu waxu ko fa ca tribunal ba kon loolu la indi ay leeral moom euh, moom docteur Alfousseyni gay, muy document boo xam ni moom moo ko xaatim kenn du ko warante te dëggal na tey ni document bi moom docteur Alfousseyni gay moo ko def kon tey li ma ñëw pour def ko mooy ñëw leeralal leen lim bind pour que ñi amul chance su mën a comprendre lim bind ñu comprendre ko bu ko defee lépp leer parce que fii kenn mënu fee nasaxal xelu xelu kenn il faut lépp ñu leeral ko pour que ku ci nekk nga xam li nga xam ne moo ciy dëgg ak li nga xam ne moo ciy kon léegi bu ñëwee ci document bi Alfousseyni donc mi ngi def document bi fii ci le 24 mai 2023 donc le 24 mai 2023 moom la def document bi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai 2023 mise en point muy leeral mu ni suite aux propos relayés dans la presse. On m'attribue les propos d'audience selon lesquels j'aurais confirmé la présence de spermatozoïdes dans les prélèvements de Adjissar lors de son premier examen gynécologique réalisé le 2 février 2021. Moni, li nga xam ni moom moo tukkee ci taskatu xibaaru Sénégal yi dañ ma waxloo ni ci biir àtte boobu nga xam moom lañ doon àtte ca tribunal dañoo wax ni man maa dëggal ni amoon na ay wallax yoo xam ne mi ngi woon ci li taataane ci yi ma jële ci awra aji saar ci bi nga xam ni moom la njëkk a ñëw seet si ma ca hôpital may médecin gynécologue nga xam mi ngi ñëwoon le 2 février 2021 ñu ni man maa wax ni gis naa ay wallax njaan ci li ma taataane ci awra aji saar bi le 2 février 2021 mu je tiens à apporter les précisions ci après mu ne damaa bëgg andi leer leeral yi may bëgg wax d'abord un spermatozoïde n'est pas visible à l'œil nu mu ni d'abord li may leeral mooy wallax njaan bu nekk ci biir mànn kenn mënu koo gis ak sa bët kese donc un examen physique ne peut en aucune façon en établir la présence et encore moins en conclure à leur état de mort ou vivant Mouni, mom moom Alfousseyni Gaye kon nag nga saytu ci gis-gis donc la may nga xam ndax amna wala amul wala jaan waxantuma laak nak ngay xam ndax wala njaane ña nga du ña ngay dund wala dañoo dee mu ne lors de cet examen préliminaire du 2 février 2020 2021 je n'ai décelé ni liquide séminal ni sperme moom Alseyni Gaye ni bi ma seetee euh, soxna sos ñu ma àndil ñaari fan ci weeru février soxna soosu mooy aji saar mu ne bi mu ko seetee bi mu saytoo awraam ñaari fan ci weeru février mu ne gisul benn liquide boo xam ni walla gisul benn ndox boo xam ni mànniyu la walla lu nu roog mànniyu les prélèvements effectués ce jour-là moi, les matatan, tatan, yematatan, yi bisbob, sont uniquement des sécrétions vaginales Moni ni weesuwul mouma mu ci j'ai également bien mentionné l'absence de lésions vulvaires. Je suis également ci certificat médical bi que John wala awra ku ki jaarul ci Bir ki amul ñom amul awra ku gu ci cette constatation ne me permet pas de conclure à une activité sexuelle récente Je ne loolu nga xam que moom gis mayuma ma mën que wax ni sëy dox ci diggante ku aussi elle n'a présenté aucun stigmate de traumatisme physique ou psychologique susceptible d'être signalé mu ni moom docteur Alseyni Gaye bi ma xoolee ndaw si ci ni ma ko gisee jëmmam wonewul lenn loo xam ni mënees na koo bind sax ci li nga xam ni moom mooy certificat médical bi jëmmam walla xelam wonewul lenn luy wone koo xam ni mi ngi woon ci jafe-jafe moom ndaw soosu bi ma ko indilee je rappelle mon ami que les prélèvements du 2 février effectués sur la dame Adjessar ont été réalisés hors réquisition préalable d'officiers de police judiciaire ou du procureur et en présence de M. Sidi Ahmed Mbaye Mon imam... docteur al Gaye je suis ni xale boobu tudd aji saar ñaari fan ci weeru février nee na mi ngi ko def ci loo xam ni du ab càkkutéef boo xam ni ay enquête enquêteuru police wala procureur de la république moom moo ko deflu et mi ngi nekk donc ci kanamu koku nga xam mom mo tuddu Sidi Ahmed mbay mais neena lolou nga xam mom la taataan ñaari fan ci wéru février ci jele ko ci awra xalé bu jigen bobu tuddu Adji sar neena du ci police wala ab enquête kat wala procureur bi nga xam mom moy topaté neena du ci sen lako ko mais mi ngi ko def ci fekkek ko xamni ne mi ngi tudd bu goor bu tuddu Sidi Ahmed Mbaye par ailleurs les prélèvements ont été transportés au laboratoire par un agent de santé sans aucun scellé ou autre dispositif de protection mu ne dama ci yok ni lolu ma tatane kon ñaari fan ci weeru février ci awra aji saar nga xam ci laa ko jële nee na ñi ngi ko yóbbu ci ab laboratoire boo xam ni kuy liggéeyee ci biir paj moo ko fa yóbbu waaye amul dara lu ñu tëj protéger ko ba dara mënu caa yokk wala ñu mën caa soppi dara nee na amul dara loo xam ni protéger nañ ko ci fan ko defoon jox ko mu yóbbu moom agent de santé bi nee na moom amul benn dispositif de protection bu ñu ca def maanaam aaruñu la nga xam ne moom la jël ci awra aji saar bi ñaari fan ci weeru février nee na ban koy jox ki nga xam ni moom mooy liggéey ci mbirum paj pour mu yóbbu ko ci laboratoire bi kenn aaru ko ba mën a mucc ci ñu man koo soppi wala ñu mën caa def dara mu ne par conséquent nee na ba loolu tax na je suis pas en mesure de garantir leur intégrité et leur non-altération par l'injection possible d'une substance étrangère mu balon ba loolu man munumaa kitaabu ni loolee nga xam ne jëlee naa ko ci aji ci guddik ñaari fan ci février ken soppiwu wuko nee na mun ma ne munu koo waat munu koo garantir nen que kenn soppiwu ko walla kenn laalu ko wala kenn yokku ca loo xam ni lu jóge feneen la nee na loolu moom munu koo waat munu koo garantir munu koo kittaab lii la docteur Alfousseyni Gaye wax mu ne en tout état de cause mu ne ak lu mën a am nag les seuls prélèvements qui peuvent engager ma responsabilité sur le plan juridique sont ceux effectués sur réquisition de la gendarmerie le 3 février 2021 et qui a assuré son analyse par le laboratoire suivant les procédures légales et réglementaires. Mouni, ak man li nga xam ni am naa ci responsabilité walla mën naa cee tontu wala ma wax ci mooy taataan yi ma taataan jële ko ci awra aji saar bis bi nga xam ni moom mooy ñetteelu fan ci weeru février deux mille vingt nga xam ni gendarmerie moo ma laaj ne ma naa ko defal ay taataan ci awra aji saar mu ne loola bis booba lam def moom rek la mën a tontu ci mbirum yoon parce que bis boobu rek la ko yoon laaj ne ko taataanal ma li nga xam ne moom nga fekk ci awra aji saar muy donc ñetti fan ci weeru février deux mille vingt et un mu ne ci loolu rek la mën a tontu ci loolu rek la am xam-xam boo xam ni leer na ko ne nañ ko defee baax na te laboratoire ba bañ ko fay yóbbu jaarale nañ ko fépp fi nga xam si war nañ ko faa jaarale.

que l'adjonction de la phrase prélèvement en vue de test ADN mu ni dolli certificat médical ni amna test ADN t'en bindu ko ci certificat médical bi bi am si ñing février dans le certificat médical établi le 3 février est une demande spécifique de la réquisition Mon ne loolu nga xamni bind nañ ko ci ki nga xamni def bi gendarmerie ñom ñoko ci def gendarmerie ni yokalchi ci certificat médical bi que def nga ay tatane ci awra aji jublu def ay test ADN mais gendarmerie moko ko laaj ni ko def ko il ne man pas de mon initiative mune ne kon jógewul ci man phrase bobu ñu ci yok ni prélèvement en vue de test ADN mom docteur al sénégal néna phrase bobu ñu yok ci certificat médical bi néna na jógewul ci mom gendarmerie moko ko ko ci yokk loo mu yok ko ci en substance voilà le sens de mes déclarations lors de l'audience tenue hier 23 mai 2023 devant la chambre criminelle du tribunal hors classe de Dakar Moni, kon ci gatal wax tribunal ba nga ne lañ woté won euh ñaar fan ci weeru mai 2023 euh, fii ci Dakar. je demande aux médias de ne pas déformer mes propos ou d'extrapoler sur leur signification Muni, ni ngi ñaan sunuy taskatu xibaar ñu bañ a soppi samay wax wala ñu dolli ci lenn loo xam man waxuma ko Je me réserve le droit d'exploiter ADN ta am donc test ADN ta am nan ngay defee test ADN ci ko xamni yow docteur bi nee xalé bu jigen bi ma andil ken seuyul ak mom mais lolay problème bi test ADN kay pour nga mën ko wax maintenant nak légui li ngay jangati ci li docteur Alfousseyni Gay wax moy comme nee mom prélèvement le deux bi ben mom engagé wuko parce que bobu ken lajuko niko kay def Euh, euh, kenn jox ko benn document bu jógee police wala gendarmerie kon boobu mënta compter ci procédure parce que procédure bi police ak gendarmerie mënuñoo sukkandiku ci ab prélèvement boo xam avant lañ ko defoon jouru plainte bi parce que Adji Sarr mi ngi porter plainte le 3 alors que prélèvement boobu le 2 la ko docteur al Gaye defoon te bi mu ko defee pare. fan ko yóbbu nee na moom maîtriser wu ko nan ko fa yóbboo maîtriser wu ko dara leeru ko ci ni vraiment am na luñ ca yokk wala yokkuñu ko ca donc le deux boobu nee na moom yoonum nekku ci et que amul benn confiance bu mu jox ci prélèvement wu le deux bi te boobu mënuñu ko compter parce que boobu plainte amagul gendarmerie li ko engagé moom ak procureur mooy jour bi plainte amee mooy le trois février mais lépp lu xew avant le 3 février ñoom gendarmerie seen yoon waru cee nekk ñoom procureur seen yoon waru cee nekk parce que loolu la xew avant la léegi nak mom lolé xew avant néna wolu wuko munu ca wax lenn parce que surveiller wuko kako yob mom li jën xamul xamul nan la ko defee budé dolé nañ ca dara mom xamul dara leeru ko ci légui bi mu wax moy bu le 3 février wa légui le 3 février bob. ana prélèvement bob luñ ca def légui ba ñom ñu le 3 février bi am si moy prélèvement officiel bi bi nga xam gendarmerie moko ko booba kenn du ci wax di wax ci gendarmerie mom yonum ci parce que la xew avant gendarmerie parce que gendarmerie bu ni nañ ma defal prélèvement def réquisition lolu mo engagé la gendarmerie lolu que engagé le procureur de la république kon la xew avant yonum nekku ci lolu mo tax li procureur bind ci réquisitoire def sen de renvoi bi attendu parce que Mohamed, ci réquisitoire am bi dafa am soxé bu ci am parce que la xew avant gendarmerie di def réquisition mais yoonu procureur nekku ci manam moy tatane bobu ñu tatane le 2 février lan mo ci yoonu procureur parce que bobu du tatane bo xam lu officiel la parce que fam jaar yëpp ken contrôlé wu ko jaarul fam wara jaar ken laaju len won ñu def ko parce que kun porter plainte da ngay dem ci police wala gendarmerie ñom ñolay laaj ne la léegi comme né nga yow da nga wax né dañ la sakku ci jaay doole dañ la sif légui jëlal enveloppe bi ñu def ko soupli fermé né la démal tel hôpital bo démé ñu seet sa aura buñ paré ñomit ñu defaat ko ci enveloppe doo ko ubbi nga andilat ñuko lolu mo moo engagé gendarmerie ak police lolu mo engagé le procureur mais ken mën mënta comprendre le procureur di convoquer le prélèvement du 2 février bi nga xamné mom prélèvement la boo am si gendarmerie def Bon ko ba nopi mu bëgg ci sukkandiku ci ordonnance de renvoi bi nga si ci la réquisitoire parce que daf attendu qu'il est constant comme résultat de la réponse et puis réponse la wax réponse numéro 9822, MDSN hôpital général Idriss Pouy, LBM euh, donc euh, laboratoire de biologie médicale du 19 décembre 2022 du chef du service du laboratoire de biologie médicale de l'hôpital général Idriss Pouy que le prélèvement fait sur Adjissar, mon, procureur mon le 2 février 2021 a révélé après analyse la présence de spermatozoïdes vivants. Voilà, spermatozoïdes vivants, spermatozoïdes morts léegi ku ko fa dugal lan moo leer ci nii euh, dugalun fa spermatozoïde parce que prélèvement du deux bi ka ko yóbbu ba mu koy yóbbu kenn selewu ko maanaam ko ràpp seere ko def ko soupli fermé bam si ken kenn ko koo ken kenn ko koo le fen dan ko koo jox noonu rek mu dem léegi ba koy jox mu diggante fa ko jëlee ak fam ko yobo ca laboratoire bi ak ca bir laboratoire ba kan moo mën a assurer que amul dara luñ ca dolli kan moo ko mën a assurer comme ni ko docteur Alfousseyni Gaye waxee lii mooy coow li kon prelèvement 2 février bi kenn mënu cee sukkandiku kenn mënta sukkandiku ci prélèvement 2 février bi leen mën a sukkandiku mooy prélèvement 3 février bi nga xam ne gendarmerie moo ko sàkkulu kon nag lii mooy coow li lu mën a am mooy réew mi duñu ay dof sénégalais yi ko yaakaar ne mën nga leen a nax ñu ngi wuti garab yoon la faje ci réew mi waxoon naa fi ni leen ñi deen nelaw daa am ñu doon dajant ni këlëb ci seen kaw ñoom ñëpp ñu ànd ni foccet yeewu fii kenn nelawatu fi te askan wi danoo romb foofu ñi leen di jiite. gis nga askanu senegal wi ku leen teg ni ñoom dañuy nelaw da ngaa xamul. askan wi raw nañ fuuf ñi leen di jiite ñi leen di jiite ni leen askan wi rawee sax xamuñu ko askan wee leen gën a ñor moo tax booy indi tappale ñoom askanu ñooy dem léegi ci internet bi daal di wane ay preuve andi lay élément daal di lay won ne la ngay wax dara du ci dëgg kon loolu moo foofu la réew mi toll ñi ni jiite nag dañuy sukkandiku ci loo xam ne ca jamonoy maam la amoon alors léegi réew mi nit ñi dañoo yeewu xarala yi dafa àgg foo xam ne naxaate mënatu la nekk yii nii jéem ñii bu doon jamonoy 1960 xëy na doon na mën a nekk bu don ci jamono yeni ya complot Mamadou Dia pour beko éliminer Senghor ak tuwa bi and beug éliminer Mamadou Dia jaay ko doole der lolou lañ def dem tejj ko ci kase bi mu genn magat seug boba lolou mënon na nek parce que boba nax sénégalais yombon na mais actuellement fi ken mënu fe naxate fi li fi mëna nek moy jaay doole te jaay doole amul ndariñ parce que sénégalais duñ nang ken jaay fi doole parce que réew mi kenn moomu ba war fe taxaw di jaay doole kon nang nañ jaarale mbir mi yoon ba nga xamni ak lu mëna am. nañu xam ni li am daal mooy réew mi ñun ñoo ko bokk nañ teg lépp ci yoon bu ko defee ñu bañ a jaay kenn doole parce que soo fi jaayee doole kenn ay musiba lay indi ci réew mi parce que ñun ñëpp ñu ngi toog di seetaan encore une fois ñoo gis kenn koo xam ne dañ koo jiiñ viol mu dem tribunal ñu àtte ko tëj ko wala ñu teg ko benn daan boo xam ni amul benn certificat médical buy wone ni kuur gi dugg na ci toq gi te fii certificat médical bi leeral na ko ni kuur gi duggul ci toq gi beneen bi mooy docteur Alfousseyni Gaye bindal waxal na boppam ci enquête préliminaire ba ne loolu mu bind moo ko bind waxaat ko ca juge kanamu juge d'instruction waxaat ko bëkk démb ca tribunal ba wax ni lii nga xam ne man maa ko bind boobaak léegi duma ci dellu ginnaaw aji saar kenn yeggul ci moom te jigéen pour nga mën koo violer da ngay yegg ci moom kon de xëy na sax looloo tax procureur bi mu demee ba li muy sàkku ci tribunal bi naan nañ tëj Ousmane Sonko fukki at bi mu demee ba xam ni wax dëgg yàlla càkkutéef gi moom moom c'est un scandale parce que fan la mën a sukkandiku ba laaj fukki at alors que ci loo xam ni amul benn firnde bu aji Sarr andi moom ak i avocat ak li ñu waxoon Sénégal yépp ni xaar leen lu rëy dina am daañ génn ay vidéo ba teg seen i yu mag a mag a mag dara feeñu ci écran géant dégg naa ab tappalekatu journaliste naan. journaliste bo xam mom moy mooy li quotidien maa ngi ko gis ci ben interview mu naan avocat bi avocat Adji Sar dañi man Kleba ngi ni damay présenter euh, damay présenter euh, sama vidéo wayé président tribunal moo ni ko am na yoo ni euh, ci ag parce que du rafet <laughs> man ni laay ma yi tapalé ñi buñ amone lo leer ci Ousmane Sonko ci ko xamni suba ngone yang koy Adji Sar lam def dérouler un film porno boo xam ni pendant presque vingt quatre heures parce que procès bi dafa gudd en tout cas lu mu dee dee procès bi war naa durer lu ëpp dix heures de temps ñuy taxaw di wax ju wax ju ñaaw ci kaw Ousmane Sonko kooku amoon ni vidéo doo ko teg bu ñu amoon ni vidéo teg ko mu naan non procureur bi euh, non président tribunal moo ni euh, avocat bi non non léegi loolu doo ko fi tegee léegi na ko teg léegi Ousmane Sonko am ñu àndal man jàpp naa ne ñoom bu dee ñoo am nañ ay vidéo nañ ko teg jox nañ leen ordre pour ñu teg ko amuñu dara. yaa rien ku ami vidéo tegal amuñu vidéo amuñu audio photo sax bu nu ànd ak Sonko amuñu ko amuñu dara donc loolu moo tax lii waxi caaxaan la il ne faut pas ñuy naan xelu nit ñi ay noo am nay vidéo waaye da doon bañ ñu teg ko fa pour mu choquer public bi ah yow public public boo xam ne yow Adji Sarr wax na fa juutal nañ maag euh, baaraam nañ maag dañ maa sëyee ginnaaw ak ba ma ni leen mais jigéen ju ñuy sëyee ginnaaw kay ma góor gee la féete ginnaaw kay da ngay jóg mais bu fekkee ne moo la féete ginnaaw da ngay jóg daw ak naan non foofu dañ fay jaay ay jigéen ma ne leen mais fu ñuy jaayee jigéen kay amul violé fu ñuy jaayee jigéen kay njëg gi ku ko am xéwlu maanaam fépp foo xam dañ fay jaayee ay jigéen te Sénégal jaay fi jigéen terewuñ ko fi parce que jigéen ci jaay seen bopp ci mbedd mee ngi ne xuus yore seen i carte te état bi moo leen jox ay carte structure de l' abilité yi ñoom ñoo leen di jox carte yoo xam dañuy mën a jaay seen bopp te kenn du leen ramas kon nag comme fii Sénégal kenn terew fii jigéen jaay boppam mais bu dee dañ ne ak kër la goo xam dañ fa doon jaay ay jigéen moom Ndeye Khady Ndiaye loolu lañ ko tuumaal kon jigéen ña fa nekk dañuy jaayu waa léegi kër koo xam jigéen ña fa nekk dañuy jaayu kay ku xéewlu mooy da ngaa fay ku fay kay mooy violé wu parce que nan la ñuy wax ne dañuy jaayu ba noppi daan dañ leen a violé mais ñii wax dëgg yàlla man damaa defoon dañ du déglu seen bopp il faut on respecte les sénégalais boor boo ko mën a jëlee ay tàppale la kon nag nañ bàyyi caaxaan te ñu vidé dossier bi ci jàmm ñu bàyyi vraiment doomu jàmbur ji mu dem nekkaat ci activité am bu ko defee ñu xool xam ni réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu bañ fee yee benn fitna ñu bañ fee jaay doole kenn bu kenn ragal kenn ñi war a doon candidat nekk candidat ñi ko mënta nekk xam mun ñu koo nekk bu ko defee ñu doog a mën a jàll ci leneen kon lii daal wax dëgg yàlla moom laa jàpp ni mooy li ci am solo ci li nga xam ne ay leeral la yoo xam ne dama ko bëggoon a andi pour wan sénégalais li nga xam ni moom moo am ci dossier bi déglu. docteur Alfousseyni Gaye li mu wax lépp ca tribunal ba am ay journaliste yu ko doon tuumaal di jéem a yàq ay waxam ak di jéem a soppi ay waxam mu génn ab document bu leer nañ wone ni lan ko waxal ñoom journaliste yi du dëgg leen wax ni moom daa wax ni am na man yu bu am ay euh, walax njaan yuy dund moom wax ko parce que nee na même loolu wax ji yanuwul maanaa ndaxte euh, man yu mënta am euh, man yu boo xam ne yow da nga koo xool ci say gët yi kese maanaam yoroo benn appareil mënoo leen mënoo gisu ay wallax njaan kon buñ nee moom euh, dafa wax ne ay wallax njaan yuy dund la loolu moom munu koo wax parce que deful benn examen bu koy permettre mu wax ko la xew ca laboratoire ba nag nee na moom yoonam nekku ci parce que prélèvement le deux boobu ñuy wax nee na moom contrôlé wu ko def na ko nag jox leen waaye ka ko yóbbu contrôlé wu ko fam jaar ba yegg ca laboratoire ba fekke wu ko nee na ko te nee na buñ ca yokkee ak buñ ca yokkul mënu koo contrôlé te loolu mën naa nekk ñu yokk ca. loolu la wax mu leer nañ wa légui nak kon leer na ni comme mom bo prélèvement mom c'est nul et non avenu parce que avant réquisition bu gendarmerie la won kon bobu ken mën ci sukkandiku di ci atté ken len mën a sukkandiku mooy prélèvement du 3 bi légui ñom ana prélèvement 3 bi loolooy ciowli légui nak prélèvement 3 bobu buñ ñu ko ëndee dana leer ak fan lañ ko dencoon boobaa ak parce que 21 euh, le le 3 février 2021 ba légui fan lañ denc. man yu ba pour ñu mën a xam ndax lii ca nekk wala lii lii nekku ca loolu nag bu ñu ca yeggee spécialiste dañ ci wax seen xalaat kon lii laa amoon comme taxaw seetlu den wax ne daal réew mi jàmm lañ fi bëgg mais jàmm day lalu ci dëgg bu ñu bëggee jàmm nañ teg lépp ci yoon ñu àtte ci yoon jàmm ne ñooy mais suñu fi àttee àtte boo xam jaarul yoon fitna rek lay yee ci réew mi maa ngi leen di sant di leen gërëm. Euh, euh, mais loolu waxi dof la. xalaat un seul instant organiser élection au Sénégal yoo xam Sonko du ci bokk loolu waxi dof la lan moo koy bok. bokk mu nekk ab sénégalais bon teint deful dara lu ñuy tere ci réew mi dossier tappale yi ñu ko tegal yëpp ñëpp gis nañ ni ay tappalee ko lal bii moom kenn waxatu li waxam nërmeelu comme na ma ko en deux mille vingt et un ni dossier bi ci sagar lañ jafandu jafanduwuñ ci dara lu dëgër waa léegi kon fan lañ mën jaar ba Sonko nek candidat Sonko ak ay nitam yi andal nga xam ne sénégalais yi foo romb mu am embouteillage. tey jii nee na day def euh, nemmeeku tuuram départ Ziguinchor nee na caravane de la paix la ko tuddee mooy mooy caravane jàmm wax na dëkk jàmm moo gën ci réew mi fu mu dem rek waa réew ma génn daal di ñëw génn leen seen kër Ousmane Sonko dikk na génn leen seen kër ñëpp génn ñu woy seen i woy daal di dem loolu wàññiwul dara bu ko defee bu ñu defee loolu ba mu yegg si Dakar ci jàmm ñu ñu ñu teg lépp ci yoon jàmm ni ñooy ñu dem élection mu bokk ci jàmm mais su fekkee ne dañoo bëgg jaay doole. ak xam actuellement fitna bi fi jot depuis février 2021 surtout que les sénégalais xam nañ ay tapalé kessé nek ci bi dossier légui buñ ñu fa bëggee ñoqali teg ci lu ci bokul bu boba buñ fi défé élection élection yi nan lay jaare yoon kan mo xalaat un seul instant que ñi nga xam ñoo topp Ousmane Sonko dañuy bàyyi ab élection jaar normal bureau de vote yi di fonctionner normalement ak bureau de vote yi nga xam ni ko tassé ci réew mi nga xam foofu dem ñaari policier fay nek wala ñaari gendarme mais loolu ay problème lay andi élection yoy ko yaakaar man ko fay organiser teg ko ci yoon mën tane kon loolu bu ko fi kenn jéem nit ñi nga xam si dañoo taxaw ni dañoo dañoo bëgg a jaay doole seen leader bu ñu ko jaay doole loolu musiba lay indi ci réew mi nañu waxante dëgg kooku mënta nekk nañu waxante dëgg liy yoon képp koo am bëgg nga jàmm ci réew mi mooy procès bii comme ñëpp gis nañ dëgg fan la féete nañ ko àtte ci dëgg jàmm na ñooy bu ñu ko deful wax dëgg yàlla man dama jàpp ni loolu bëgg a yee fitna ci réew mi rek lay andi te jaru dara jaru ko fi parce que réew mi jàmm rek lañ fi bëgg kenn bëggu fi yee fitna maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam